voilà salaamaaleykum info def déplacement c'est si euh, football club Nous nga une euh, initiative chaque année def consultation gratuite sur euh, l'ophtalmologie ak aussi def don bi nga ñu handicapé centre Anna, donc le soir nous dem def don tay la matin bi ñu jël benn initiative ñëw fi def ci ben euh, consultation gratuite donc comme ni ngeen ko gisee ni donc consultation mi ngi nii commencé na depuis 8 heures euh, gratuite la dañay def consultation gratuite entre 2500 so paree ñu jox la ben verre fékanté la yaayoo nga ko donc ñu xol après organisation bi xol ñi nga xamanté ñoo jël initiative ñu xol ñom la lañ ci xam ak idée bi fu mu jógee donc ñu jël quelques réactions yi après ñu bàyyi le soir ñu dem seeti leen fële sen don bi ñi def Marie Diallo kenn ci initiative bi donc euh, supporter bi Guédiawaye la a même la beaucoup donc maintenant, j'ai jàpp mon moi, mooy initiative affaire euh, don bi nga xam te ne ñu ngi ko def bi deuxième édition donc euh, monsieur Marie Diallo ñu ngi lay nuyu. waaw laay maa ngi leen di nuyu di nuyu waa info. donc Marie dañ gis ne tey bi deuxième édition daaw ngeen def benn don ren ngeen defaat don mais ngeen bokk doole si nga am de plus muy consultation gratuite idée bi fan la jógee. Waouh, d'accord l'idée est venue ben concept bu ñu doon développé tuddee woon ko crap attitude. parce que ñun géejawaay dañoo gëm ne sport yamul ci rek dem stade supporter ñëw ñibbisi ndax sport am na volet bi nga xam ne sport war na ne njëriñam ci biir société bi donc depuis ñu ngi ñu ngi ñu ngi développé woon concept boobu noonu di wax euh, le sport au service de au service de la société je pense que première édition bi defoon nañ ko comme loo gis nag en un bi en deux bi day gën a am euh, day gën a am maturité donc moo taxoon ñu def loolu noonu Et puis on a vu que dans la première édition, on a fait une remise de dons. on s'est dit qu'il faut nous gagner avec nos partenaires de développement on a tout fait pour quand même pour euh, pourvoir population bi nga xamné dañu am problème de vue consultation bi nga xamné ne leen mëna a ay verres parce que xam nañ ne verres yi dañoo cher donc au moins ñu jappalé leen ci ci ci vue bi quoi. voilà donc ñu gis comme sa biir wax sànq da nga ni euh, ngeen dajal seen ma naka ngeen def ba am moyen parce que buñ xolé xoolee yi mënuñu mën a jàpp ne amuñu ay moyen bari naka ngeen def ba récolter moyens yëpp. waaw ñun nag liñu gëm moy li ma waxoon rek concept bi japp mom moy que ne lepp luñu def rek dañ koy def ci benn ak benn euh, ce que j'entends par là mom moy que ne xeyna amuñu ay millions yu bari

première euh, ressource yi ñuy gënné suñu propre moyen sur fond propre ak nak bokk boole ci nak yaatal nak wo doomu géejawaay yëpp te macha allah yaakaar naa ñëpp ñu ñu wo wuy nañ ñu ci initiative bi parce xam nañ ne li ñu ñor rek moom mooy géejawaay. tey ran mom ban ban ban spécificité mo si am par rapport ak daw wa par rapport ak daw li ci am comme spécificité mom moy que ne ñun on a set set nañ ay partenaires euh xalaat nañ né euh, comme ni mu koy waxoon sank euh, la société. Euh, li koy tabax l'État ne peut pas tout faire les collectivités ne peuvent pas tout faire mais japp nañ ne nit ñi population yi développement ñun ñokay commencer. Euh, li ñuy wax développement à la base ça commence di ku nekk di génne limi am ñukay mettre ci ci euh, ñu bolé ko djema xol chaque année ben problème bu ñuy régler tay suñu régler les problèmes de vue suba ñu djema xalat don de sang ginnaaw suba ñu djema xalat récompenser élèves meilleurs élèves ginnaawaat suba ñu essayé xool néew ju doole yi nan la ñuy def ba jàppale leen te je pense que nit ki bu amee volonté amul lenn lu ko të te ñun nag suñu volonté mooy suñu arme. donc ñu gis pas mal gis nañ gis ngeen vraiment que ni am nañ mobilisation bu tax bu fi am ak aussi gis nañ dons yi ngeen am ak lépp est que mën nañ ko xayma ci xaas na la mën a toll par rapport ak daaw. waaw peut-être que d'ici à ce soir xëy na incha allah dinañ xayma. Euh, mais je pense que on avait fait ben levée de fonds 600 à 700 000 mais l'organisation a organisation euh, levée de fonds et ak dons mais Inch'Allah, renvoyer ce soir Nous ñu terminer journée évaluation Nous allons prononcer chiffres mais en tout cas nous que nous avons perspective c'est une perspective comme nous euh, en tout cas nous réfléchir calmement euh, euh, conférence de presse pour association. et je pense que c'est tant que nous avons il faut nous nous xam une affaire depuis le départ nous avons fait ce que nous avons que nous supporterisme actif Nous top. rek dem ci avons nous dañuy que dirigeants donc ñun il faut mu am lenn lu nga xam ne ñun yaakaar nañ ne suñ liy suqali sport gëm nañ ne si ñun la war a jógee ndax ñun ñooy instance bi ëpp nit les supporters ñooy instance bi ëpp nit donc luy suqali sport ëllëg bu bu dee wàllu violence bu dee wàllu mobilisation lépp pour xeex violence wala ñu wàllu mobilisation dem stade lépp si ñun lay commencé à la base et je pense que tant que yooyu ñoo ngi ci leneen li ci des nag ñoo ngi waxtaan ñoo ngi continuer yaatal suñu perspective et incha allah fii ak fin début d'année incha allah nit ñi dinañ xam Euh, lan mooy suñu suñu suñu suñu taxawaay. voilà mu nekkoon Marie Diallo kenn ci supporters yi donc mu nekk tamit xam ne mooy initiateur bu événement bi donc daaw def nañ ko ren aussi defaat nañ ko donc mu nekk une une réussite donc ñu koy leen souhaiter bon sens donc di leen ñaanal yàlla yàlla kanam jëm jëm ay affaire foofu. li ma ci doon dolli rek moom mooy euh, bu dara sottee d'abord euh, dañuy jaajëfal nit ñi vraiment il faut le dire amuñu payooru supporteeru Guédiawaye FC yi. vraiment ils ont montré ngor détermination djom, xel xeexuñu saagawuñ ñun li ñuy toute forme bu ñuy xeexee rek moom mooy def lu nga xam dafa am njëriñ ci société bi Benen affaire bi nga am moom mooy feedback bi tamit lu ñu mënti def ak lu ñu mënti taxawu tamit bu dee nit ñi wuy si wuñ ñu amuñu chance donc la population de de Guédiawaye gis nañ ne une oreille attentive à li ñuy def li dox jéego donc loolu aussi ñoo ngi leen ciy sant di sant aussi suñu partenaire parce que yenn événement yi mënuñu ko def sans suñu partenaire muy association bi nga xam association humanitaire Sénégal bi nga xam ne moo ñu verre que ce soit le personnel de de de de de de de de Gloria que ce soit le personnel de de Vanilia que ce soit ñëpp ñi nga xamné ay bonne volonté ñi nga xamné ay monsieur Daf bi nga xamné ne directeur hôpital Dalal euh, que ce soit ay ñom El Hadj de façon vivre vraiment ñu ngi remercier di voilà donc monsieur Amadou Théophile Mané ñëwoon aussi def consultations. consultation donc euh, monsieur ñu ngi voilà maa di voilà naka nga gisee naka consultation bi nga supporter ah, vraiment c'est une belle initiative dans la mesure où vous avez bien choisi le moment parce que moi ça fait deux ans je devais aller en consultation mais parfois laxisme ou ñak jot moo ma mo handicapé Les juges juge la disponibilité fi je pense que euh, li c'est une action bo xamné vous êtes proche des populations ce sont des initiatives telles que ñun ñun population yi contane nañ ko ñu koy saluer parfois nit da ngay bëgg choses. def mais dem di rang jour ordinaire alors que yow tu as des contraintes lol moy tax ñu ci bëre sax di nga yore feebar di ak mom ba mu daaneel la ñu jóbbu la mais comme tay jour férié la mba dimanche vraiment ya ngi tok sa kër amoo benn contrainte bo xamné vis-à-vis d'un employeur nga ñëw faju si lol je pense que ce sont des initiatives à répéter partout voilà ñu ngi leen di sant message euh, bi ngay passé supporter Guédiawaye mooy ban message. non wax dëgg yàlla ñun ñëpp Guédiawaye la ñu bokk. fii la ñu màggee fii la ñu juddoo. lépp daal ñu ngi seen ginnaaw. topp leen di leen di remercier. ñu gën leen encouragé. Euh, kontaan nañu fi ñëw nekk si patiente yi ñëwoon aussi def consultation euh, Sophie ñu ngi leen di. ñu ngi lay ah, sa tànk Euh, dañoo ñëwoon suñu école l'autre jour ñu ne ñu dañoo am consultation fii gratuite tombek aussi moom naroon dem bopp ça fait occasion ma ne xaar ma ñëw fii rek benn yoon. naka gisee initiative bi nga xam tey supporter Guédiawaye yi dëkk ci Guédiawaye ñoo ko organisé pour seen gox. ah dañ koy rafet rafetlu rek parce que booy xool nga nar a paas bi dem ba Dakar war a def foofu consultation ngay fay 3000. en même temps aussi nga jënd lunette yi nga ñëw fii ngay fay 2500 ñu may lunette gratuite loolu tam si. donc mën nañ jàpp ne kon am nga lunette quoi. waaw am naa lunette. voilà tey boo amoon benn message boo leen di passé ban message la. ah ma leen di passé pour ñu gën a yokkaat rek parce que booy xool tamit si li ñuy yëngu lu baax la waaw. merci mu nekkoon suuf yi nekkoon kenn si patiente ñëwoon def consultation ñu koy remercier bu baax. voilà madame ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw tur bi naka la. Julienne Mende. Juliette tey nga ñëwoon fii la mu doon sa tànk tey fii. maanaam dañ ma ne woon da di def tey consultation fii ma taxoon ma ñëw pour ut si verre ndax dama. yow fan nga déggee information bi. Euh, ci sama doom laa ko déggee moom moo woon ne ma waa foyer bi dañ fay def tey consultation. donc tey mu ne woon consultation bi nga xamante ni supporter Guédiawaye ñoo ko organisé woon donc yow loolu la ko gisee. xanaa di leen ñaanal rek ngeen jëm ca kanam ndax lii tamit xalaat bu rafet la yéen a ngi jàppale waa communité bi ak waa géejawaay waaw ndax li ku ko dégg ci 2500 wax dëgg yàlla bu dee am nga problème bu bët jar na nga dem. donc te yow tey boo amoon benn message bi nga xam ne moom nga leen di paas tey loolu nga leen wax. ma ne leen ah, leen jàppale ndax lii nag wax dëgg yàlla yi na ngi dimbali askan wi waaw loolu moom. ñoom tamit tey si ngoon nga ñu am benn don bi nga xam ne ñu koy organiser ay xale handicapé wala leen yóbbul ay don tamit aussi loolu noo ko gisee. xanaa di leen ñaanal rek yàlla gën leen a jàppale te dooleel leen. ndax xalaat bu rafet xale bu ko jógtee da nga ko war a ñaanal yàlla waaw yàlla doole leen ngeen gën a góorgóorlu nag te xam ne yéen a ngi ci société bi di dox lu baax lu rafet waaw